waaw sant yàlla dañuy sant yàlla parce que on a joué huit matchs et la finale mais ñu ngi sant yàlla parce que dañ kaa joué ci jàmm parce que ay espoir la ñuy def te pense que boo tàmbalee benn mbir nga tàmbale ko ci jam mu jeex ci jàmm loolu la ñu war a def ci sant yàlla parce que léegi nit ñi yeewu nañ xam na ne fu ba léegi foo la agréé la vraiment championnat boo xam am benn problème ñu ngi content trop ñu mu déroulé ça a été commencé par vraiment ci jàmm et jeex na ci jàmm et ñuy gërëm en même temps le muy Djibril Dia comme ni ma ko waxee la woon waaye avant mi nekk parrain tey sponsor la woon nag lu ma trois ans mooy sponsorisé zone bi mu ñuy accompagner vraiment bu ñëwee tey nekk parrain dafa ñëw dund gën a yokk ci li mu leen def ñu koy remercier di koy ñaanal euh, vraiment gis nañ ni muy accompagner la jeunesse kontaan nañ trop ci taxawaayam. waaw bilan bi mooy sant yàlla su bokk boo xoolee préparé nañ ko lu yàgg ànd nañ ci ak équipe bi préparé nañ ko boo xoolee ambiance am na nit ñi ñëw nañ ci jàmm vraiment on a des très bons récompenses on a récompensé le champion ndax ñu ne ñu def championnat bu ñu defee championnat après ku dul champion da nga am récompense ñu jox la ba pare nag léegi ñu doog a organiser final mais lépp jàll na kilifté bi moom acte républicain la acte citoyen la je pense que set dafa bëri njëriñ ndax bu dikk setee dina am wërgu yaram bu dëkk dé dina taaru je pense que loolu Macky Sall wootee li Sénégal yépp di kontaan la motax bu nga ko Sénégal yépp uyu nañ ko na boko lé Sénégal lépp ko dem ci Sénégal ñi ngi nettoyé. li tax ma jappay bëgg Kaolack ñak doomu Kaolack bëgg Kaolack euh, Talla Dieng nekk suma xarit moo tax ma nangu leen final nek nekk doomu Kaolack bëgg Kaolack daal motax ma jé final bi. affaire yi pour la at fayda ak jom kese la waaw bëgg liggéey yëpp liggéey moo ma ko jox ma nag bëgguma ma entrepreneur la liggéey ak laay def. nekk nekk nekk sénégalais bëgg suñu dëkk moo tax ma taxaw entreprise bi di ñaax euh, jeunes collègues yi nañ liggéey parce bi liggéey la jom la nit da am fulla am fayda liggéey comme sama doomu ndey ni mu koy defee liggéey mooy lépp. tàggat yaram ku nekk war na ci dugal loxoom.

nga la am fit am fulla am jom nangoo liggéey képp koo xam ni Kaolack waa nga jàpp naa ni loo xewle rek war nañ ci mën a dugal suñu loxo loo xewle lu nit xewle fii te nekk doomu Kaolack waa ñaan nañu ñu yëg ko ñu ànd ceeg yow luñ ci man mu def ko